Wanda Wanda Wanda, ndaw gaañul xolal avant gu lañu woote avant gu rek lañu ya. woote ñu ngi lay nuyu bu baax a baax maa ngi leen di fay naka yi tey maa ngi di fay tur bi naka la Adja Adja Adja la yow lanu yaaw rasul yaaw sama doom la sama xarit la sama lépp hmm. la hmm. gis appelam yi man ngay gis fu muy dem man lay àndal du dem ba ñëw di ma hmm, expliquer dara di dund da doon wax man yow sama yaay nga mu taal mu mu jëfee ko mhm, mhm. sama xarit la mhm, sama complice la lépp la ñuy waxtaan bëgg ma lool ma raw ko bés bii rek laa ko doon ñaanal boo seetaanee appel bi passé dama ne ko balaa appel déwén incha allah li ngay sonn ci appel di ko ci daj barke bàyyi laay mun naa mm-hmm. ma ne ko balaa déwén mm-hmm. yàlla dina la may jëkkër ju baax bu la attan boo booy appelaat sa borom kër day toog sa wet barke Serigne Babacar Si ni laa ko waxee woon alors laataa muy xuus fa neen ci euh, jëkkër jooju lay laay taxaw mm-hmm. gis à ci nekk day posé wu la question kan moo takk yaawa kan moo takk yaawa kan moo takk yaawa yaawa rek ku baax ko takk góor gu baax góor gu yiw tee ci kanam léegi di ngeen ko xam mu ngi ñëw fii toog langal ñeenti rasta euh. di ngeen ko xam alors yaa awa sa doom la <laughs> est-ce que ça te mu dund tey ba am bés yi nga xam ni képp kuy waajur képp kuy mbokkal lii rek ngay ñaanal sa doom xolam rek yaa awa tey la ko yàlla fay teral waajuram la ko yàlla fay <laughs> bëgg mbokkam la ko yàlla fay mm-hmm. balaa ngay bëgg kenn da ngay bëgg say mbokk ba pare mm-hmm. mm-hmm. yaaw ay mbokkam la njëkk bëgg yaaw ay mbokkam la njëkk a teral taxaw yaayam ba yaayam génn àdduna bàyyi ko fekk waajuram bu góor mhm. mu gar ci bakkenam mhm. bàyyi ko fekk macha allah ay frère am ay sœur mhm. ba tey rek la mu gàccoo mu ngi ko gàccoo newul sama yaay dina naana yàcc déedéet bëgg famille yaaw balaa moo am jàmm rek daa bégal ay mbokkam ba nu bég balaa muy def dara ci biti ci ay biir néegu ndayam ak baayam la ko njëkke du sàmba àllaa di xale bu baax barke yonent bi am jom dafa am jom lu góor ne bu tey laa koy def moom ba bu góor ne dama koy def suba moom léegi balaa tëdd def ndax am jot na ñu koy ñaanal sëriñ bi yàlla na ko yàlla barkeel nga xam ne lépp lu mu sonnoon ci yaayam ak lépp lu ko ña ay waajuram ñaanaloo gis na ko tey ndax yàlla may na ko jëkkër ju baax jëkkër ju ko macha allah bu ko attan bu ko bëgg ndax jëkkër da lay bëgg te bëgg na ko yërëm na ko te xam naa ne dina ko tey di ngeen ko gisee si kanam. bu bëgg a xam ni surprise parce que internet yi ñu ngi laaj kan moo takk yaa. waaw léegi surprise bi léegi ci yaay ji ngeen ko bëgg a testé. yaay ji lañ ko bëgg a testé yaay ji moom ngeen ko wax. yaay dañu ko bëgg a njool maa ngi ñëw léegi. ah njool la ñaari njool am la parce que leneen ministre la woon. <laughs> ministre bu njool boobu la. non non moom daal peelee lay fa li muy liggéey daal peelee ko ma taal déedéet du PDG. lan la milliardaire la wala milliardaire. pro la. pro la ah. xam naa kan la xam naa kan la. mais dañuy wax tur bi kan la. déedéet pro la ci kanam di ngeen ko gis. sama sama goro bi dee ko gërëm ci kanam bi ngeen ko. mais madame nan sant ah, mën ngeen di jaay. ci kanam. madame nan xanaa ci kanam bi ngeen ko xam jàpp leen tee bi rek <laughs> commencement pour tee fàtt tee. xaar ah. leen gis tee tee. mais rek ñu gis yaa bi mu bi noonu la defee li moo di mariage. Mhm. Mhm. yu mag yi. dëgg la ñëwaat ci bi nga xamante ni moo di dëkkam ñëw ne fii laa ko fii laa bëggee mu amee fi am tëngee jóg ko gën a moom tëngee gis nga moom dañ naan fier d'être lébu moom dafa fier d'être lébu gis nga ci biir waxam sax boo ko déggee buy wax danaan man lébu laa man tëngeej laa dëkk tëngeej laa juddoo falaa màggee falaa yaroo yaa ngi dégg moom loolu rek mooy waxam kon tey jii boo na takk bu sañoon sax appelam fii la koy def see mais ay xaritam mais tey moom keroog biñ na takk pa bañ na takk papam di ko ñooñu di ñëw di waxtaan si balaa ñuy wax papam di wax dana man papa fii laa koy defee te xam naa ne am na kilifa boo xamante ne tey jii bu ñaanoon papam ne ko dama koy defee fee papam da ko fay may mu defee ko ndax doom fi mu la teg rek koy teg mais dafa ne papam fii laa koy defee papam ànd ceeg moom mu ngi ci biir mu am kilifa lool yaaw du def dara te tàgguwul baayam parce que moom la fi desee du def dara tàgguwul ay mbokkam du def dara tamoon tàgguwul barke sëriñ Ba. alors euh, dernière question. Ah. Mhm. ñu gis que ni mhm. mhm. ba de nekkee woon yaayam bi mu toogee dee rek ko fi jëlee mës sa jóg yaaw day doon dafay doonu sëy ndax yaayam dafa sëy ba mu yóbbu ko jàmmalaay. day sëy ba dee incha ci kàttanu yàlla yàlla na ko yàlla musal ci cat ak làmmiñ ak bët yàlla fay ko xolam ci sëyam bi lépp lu mu sonn ci waajur yàlla na ko yàlla fay yàlla sëyam bi yàlla na benn sëy yàlla bu mu ci gis su na naqari ci barke sëñ Babacar si barke Baye Laay mi mu bëgg barke Chérif Ousseynou nga xam ne mooy bakkanam moom lay nooyee jërëjëf ba ci kanam na ba ma solo ba pare. ñu dem jëli papa. ki nga xam ne mooy aba goût mariage bu yaa aw rasul ñu ngi taxaw ak koo xamante ne nii euh, je peux dire la dañu koy bàyyi bu nuyoo ñu sànni moom ay kàddu. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen coono. di rafetlu liggéey bi yi ngeen di def nii yàlla defal leen ci ndam sutura taw tawféex alors ñu gis sa cousine woote bés bu rëy di mariage royal ñu gis nga nekk ci organisation bi sa diggante yoo xam yaa yaa war a su yàlla man mënuma wax sax si moom ndax fi ma féete man nag fi ma féete dafa dafa dafa dafa dafa dafa nekk ku sori si man uh-huh. pare xeebuma benn yoon uh-huh. lépp loo xam ne ni tey mu ngi koy def uh-huh. balaa muy def dina mën a carrément nangam ak nangam lan nga xalaat lan nga xalaat ma ne ko nañ defee nii ak nii ak nii ak nii ndax euh, li la koy firnde rek ñàkk xeeb bi ñu ñàkk xeeb li mënoon na ko yóbbu fu ne mhm. te yéen ñi xam ngeen ci loolu mhm. mais mun a du ma ko yóbbu fenn fu dul samay dëkkandoo samay mbokk mhm. bi mu ci waxee la ñu nekk ah amaana ñun suñu mbébét loolu la woon mais comme yow jiitu nga ñu si kon xam nga li la war te yaa ngi koy def te lii rek ñun la ñoo xaar ci moom muy lu mu am bam bëgg waa Tëngéej lu mu rëy rëy rëy Tëngéej lay dellu se ndax mu mën a nekk ci àddina lu mën a xew fii lay ñibbi si waat alors en tant que cousin ban nga koy jox ah conseil bi ma kay jox ci sëy mooy conseil bi may jox sama bopp jigéen buy sëy muy muñ xam ne sëy benn neexu ci muñ lañ ko sant te gëm naa ne xolam bu rafet mhm. dina ko dimbali ci lu bari ndax sa mbaaje ndey comme ni ko yaayam ji seedee laxu moo ko génne si ab sëy alors mbokk internautes yi ngi fi nga xamante ni mooy euh, mariage bi nga xamante ni yaa awa rasul daal di nañ koy daal di takk donc ñu wan leen euh, les premières images ci li nga xamante ni moom mooy ci ci mariage bi nga xamantene war nañ ko célébrer fi nga xamantene moy ci fajam di tëngëj alors gis ngeen xam fi lañ ko réservé pour mom ak peut être ki nga xamantene moy mooy jëkkër ji nga xamantene gaay la ci def ko xamagul nak pour bi waye nee nañu daal en tout cas sant bi moom téla pour bi téla sant bi téla ndax rek gaay yene deviner xam ñu naan le ministre mom moko tak donc kenn xamagul donc les dañ ngeen image mariage bi nga xamante ne muy mariage royal mën naa ko tuddee loolu muy yaa war a suul alors gis nga traiteur yi nekk nii gis nga ñoo ngi ci décoration bi amagul lenn loo xamante fi mu toll nii euh, daal di doon koy de toute façon installation bi ci la nekk nii fii moom lañ réservé pour ñi nga xamante ni moom mooy yaa war a suul donc maa tudo, valeu. wan leen